bu problème touché Pastef ak Ousmane Sonko rek yi nekkatul ci logique gu droit. Mhm. Euh, je ne sais pas si yéen a ngi fàttaliku Guantan euh, États-Unis après le 11 septembre. Euh, ci lañ créé ay Guantanamo. loolu nekkatuñ ci logique gu. les lois mhm. pourquoi parce que ñoom dañ jàpp ni il y a ce qu'on un impératif sécuritaire boo xam ne moo ëpp doole lépp c'est-à-dire. Euh, nécessité assurer la sécurité publique mu ëpp doole laneen beneen considération fii dama def parallèle boobu parce que dama am sentiment la mën naa jóom que depuis euh, problème mu Sonko ak l'état du Sénégal dafa commencé euh, à chaque fois l'état du Sénégal buy buy buy régler buy régler problème bu jëm ci affaire Sonko ak Pastef du xoolati le droit moo tax fii problème Sénat bi ci même logique Macky logique dafa am benn logique Macky Sall boobu may expliquer noonu mooy assiégé këram euh, ainsi de suite mhm. jàpp ko dugal ko fii tëj kër gi et ainsi de suite ainsi de suite logique boobu moo continuer ba ci Sénat bi mhm. parce que Sénat d'ailleurs boo seetloo Sénat problème bi mus na jaxasoo woon na coow li bari na déggu leen dégguñu sena fenn mhm. bu ngeen seetloo jusqu'à ce que avocat Ousmane ko saisir Sénat et que et yu bëri commencé wax mais ana Sénat parce que ñoom ñoo war a arbitrer le jeu électoral ah bi ñu saisiree Sénat Sénat mënatul noppi pourtant jàppoon nañ seen jàmbur de. Mhm. parce que xam seen bopp. mais bi ñu demee ba moment donné ñu réagir parce que def injection. Mhm. parce que aussi loi bi moo leen ko may. Mhm. l'article ñoom déjà institution article L3 du code L3 L13 du mais aussi l trois mm. bi régir Sénat ak L10 parce que l trois dafa wax pouvoir injonction boobu L10 gën ko euh, firndeel ci biir li régir la la Sénat alors ñu wax injonction ni kon e jox leen ko jox leen mandataire bi euh, fiche bi mm-hmm. mooy seen droit ñoom mm-hmm. mais président daal di dindi Sénat mais foofu loolu la wax ci tubaab révocation ad nutum sur un coup de tête dañ leen révoquer sur un coup de tête nga xam ni par exemple dañ ñëw rek dàq mu ngi mel ni rek ngay liggéey fenn yor contrat yi sa patron jekk-jekk rek eh dàq naa la eh, jóge fi eh génn jox ma sama caabi wala yu mel noonu donc c'est sur c'est sur un coup de tête coup de tête boobu mënul légal lan mooy un contexte bi déjà deuxièmement nomination bi nag parce que déjà yéen nga wax nomination Sylla euh, Cheikh Awa Balla tout ça mais déjà révocation bi rek moom moo jëkk nekk problème avant nomination bi nekk problème révocation bi ci contexte boo xam ne Sénat dafa jël mesure dafa jël décision mhm. ñu révoqué ko c'est-à-dire que c'est une sanction mhm. par rapport ak euh, injonction bi d'autant plus que avocat yi dañ defaat plainte Sénat ne leen comme def ngeen injonction am ngeen droit substitut pouvoir de substitution hmm. c'est-à-dire que bu administration bi doxalul yéen am ngeen droit doxal ko hmm. non seulement ça mais même am ngeen droit demander ñu sanctionner administration bi hmm. loolu mooy teg texte Sénat ah ñu ne président ne ah kon sena buñ ko bàyyee day dem ci substitution te Sonko boo koy jox fiche parrainage bi rek muy nekk candidat pourquoi parce que soxlaawul sax parrainage citoyen coalition soxlaawul sax parrainage parrainage citoyen am na suffisamment d'élus am na suffisamment de députés vingt-quatre députés donc était trente millions yi du leen jaaxal donc ça veut dire que euh, président lépp lu laa ci Sonko lu laa ci Pastef mu ngi ci logique gatsa gatsa ñu baal ma ci waxin bi mhm. parce que logique boobu ba léegi xam nga Sonko xëy na moom génn na si mais président moom mu ngi ci si gatsa gatsa de moom génnu si. bosam moo gën a saf sax. <laughs> waaw moom moom génnu ci logique boobu ba léegi moom ci la ne. logique bu jaay doole jaay mhm. moom jaay doole. lui c'est le chef de l'État. bien sûr mais dama dafa am loo xam ne nag justifié wu ma ne damay expliquer. Mhm. ñu may ma xel ak ak jàpp ma xel ci li may wax. Mhm. dafa am tamit des choses graves tey état xam nga am na plainte bu am CEDEAO. l'État était gêné pour dem CEDEAO est que xamul tax. pour man de sama njort. Mhm. état aussi mënul wax lépp sur la place publique. jéem a justifier damay expliquer. Mhm. état mënul wax lépp sur la place publique. am même à la CEDEAO am na argument yoo xam ni l' agent judiciaire de l' état mënu ko génnee. Mhm. parce que si euh, affaire ñu ngi affaire sécurité publique la. affaire sécurité nationale la. dégg nga état bi peut-être je bien peut-être mën naa am dafa am information yoo xam ni. am na ko yu justifier li muy def te du ko mën a wax. quitte à bafouer les ah les les lois ah, et règlements bu ko mënul wax rek yow yow miy xool da nga naan day bafouer. d'accord mu ngi mel ni tey damay ñu jéggal ma. parents yi da leen di dal ci seen doom. Mm-hmm. damay takk kii ñun la doo ko takk. damay see kii ñu ne duñ la ko may. mais parfois duñ la mën a wax lépp li tax. Mm-hmm. ñu ne la duñ la may kii. parfois ñu la mën a wax lépp li tax ñun la doo takk kii ah daloon na suñu benn xarit trente ans après mm-hmm. la door a xam lu taxoon papaam aaye ko d'accord parce que dafa demoon di takk jabar si famille yaayam d'accord papam ne ko du si dal mu ni moo sama papa mu ngi takk sama yaay mm-hmm. ni du ma takk ci sama famille yaay mm-hmm. mais trente ans après la door a xam pourquoi papam na ko woon bul takk c'est pour c'est la même chose que l'État l'État ne peut pas tout exposer en public aussi dañ ciy bàyyi xel mais fii encore une fois sur les principes dañu violer les lois ça je suis d'accord là-dessus amul logique juridique am na violation flagrante des lois aussi bien révocation bi que nomination yi d'accord et que mais dans le fond je pense que y a une logique sécuritaire liée à la bataille Gatsa Gatsa bi nga xam ne Macky moom mosu see génn mu ngi ci ba léegi ak ak Sonko